واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين الأشهاد من الآمنين اللهم من سبقنا من قرابتنا فاغفر له يا رحيم ومن كان منهم في عذاب فنسألك في هذه اللحظة أن تغفر له وترحمه يا رحيم وأن ترفع عنه غضبك ونيرانك وأن تبدله بنعيمك ورضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله man la Seydina Ousmane Dramé abu la réveil des consciences xanaa naqar yi dal ci suñ kaw yàgg dal ci suñ kaw di ko muñ dëkke di ko muñ te ba ndëgë amuñ ci saafara amuñ ci saafara maanaam black clean black bii nga xam ne dañoo ñu dikk bi fekk ko ci fi fekk ko fi yàlla dogal ñu doon ci victime victime yoo xam ne euh, bis bu nu rey rek duñ feeñ bis bu nu rey rek kenn rey lu néew lañ koy jàppe lu néew a néew la ñuy jàpp ki ko def muy lu metti doon aw naqar doon aw tis euh, ray bi sax wàññiku na léegi wàññiku na wàññiku na de en mille neuf cent quatre ba quatre-vingt-neuf ba quatre-vingt-dix li fi dee ci ay sénégalais ay taximaan kenn xamul nu mu toll kenn xamut nu mu toll waaw bis bu ne ñu jël ab néew yóbbu suul bis bu ne rek ñu bu néew balaa yi fetalante ñu ni ci digg bi ndax nit ku ñuul fii ay mbokkam ne lay dem looloo tax ñu taamu woon Harlem taamu woon black quartier black yi dëkkandoo ak ñoom waaye ñoom day liñ faat ci noonu kenn xamul nu mu toll waaw di ko naqarlu nag dellu di ko jaale ay bokkam di ko jaale ay xaritam di ko jaale maamam jooju nga xam xam naa ko di ko jaale képp koo xam yaa ngi nekk Atlanta nekkoon fa ak moom ñu ngi koy jaale lii du gan ci dëkk bi Chicago la fa nekk ëpp naa nettali ñoom seen biir ni ñuy rek dama de kenn xamut nu mu toll te dëkk bii ñu wax New York euh, yàlla def na fi sutura metti na ndax kat loolu li fekk nuy rayante ñu ci seen biir waaye téewul yaatal nañ ñu yaatal nañu de te gént gi ngeen di gént mu la rêve américain ba tey am na fi am na fi de Amérique d'accord ñun xamuñu dee xamuñu rey moo tax bu reyee rek ñun ñëpp ay tiitan seen yëpp ay néew la dama ne angle boo romb ña fa samp ay sondeel teg fa ay làmp parce que dañ faa ray kenn ci geng bi geng yi dañuy reyante guddi ak suba ak ngoon li ñuy tux dafa cher drogue la ñuy tux te amuñu xaalis wër di raab ak di rey ñi lañ fi nekkee ko ku ne xam na ko reyin yu bari na nag jiwluñ ci kii africain la déedéet nun noo foog loolu mais déedéet ñoom liñ ci jublu liñ ci jublu rek mooy satisfaire seen bëgg-bëgg rey la jël ci yow alal dim jënd ko am tux tux ko mu jeex benn guddi waaw loolu dong la amuñu xal dañuy def ba noppi door a xalaat loolu mooy seen erreur éducation bi leen yarit baaxut parce que tubaab bi considéré pour ay nit ndax bu jëkk boo amee nit ku ñuul kenn du ko régistré municipalité bi kenn du ko régistré trésor ngay dem déclarer comme ça alal yooyu traumatisme boobu nga xam DNA la moo jaxasoo ci blague yi waaye blague américain yi ma xam ñëpp ñu baax lañ black américain yi ma xam ci baree baree bari quatre pour cent et quatre vingt dix neuf pour ñu baax lañu. gis nga bambi dee bu ñëwee dañuy xalal arlem ñu nekk fi di sikkar ca kaw di expliquer sëñ tubaay kan alaji maale kan lislaam kan te nit musu cee faxaj musu cee faxaj dafa toll ak ab géetu toujours noonu lay mel am na ko wet yoo xam ne boo cay xool Sénégal a gën a dangereux Sénégal a gën a dangereux ndax quand on parle de sécurité seulement sécurité sa jëmm yow mais sécurité say finance sécurité sa famille sécurité sa njaboot sécurité lépp te sécuriser boobu Sénégal amu ko the américan dream exist fii ku fi mën a dikk dikkal ku mën am visa ñëwal ku fi dikk da nga liggéey ku bëgg a jàng da nga jàng fii ku bëgg a tekki da nga tekki boo fi dikkee dëkk bi bënul dara sikku ci dara sikku ci lii am nag am na réew mi yotal noonu combien de millions de personnes ñoo fi dëkk New York rek lu mu dee dee dee vingt millions de personnes fanaan ci biir New York nekk ci biir New York ñu yendu fi waaw te Sénégal gépp seen quatorze millions lañ koy werante ah te ni dëkk bi demee ak coppiku gi moo waral yu bëri di am gis lépp ay ñu rey la ñëpp dañ leen di rey violence sur violence waaw ma ànd ci Black Panther Movement ànd ci Black Lives Matter di leen surveiller ak di leen déglu ñuy xeex black contre black di xeex black crime di xeex violence bi ci biir communauté bi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu mag waaw ba tax na wàññi na de lii dee léegi ah lii dee léegi la déew la lan dee bu jëkkoo ko ëpp Atlanta gi bu ne ak Chicago néew yi dañuy rang ci biti Harlem gi néew ci mbedd mi lañ daan fanaan waaye tey gis ngeen ko lépp wàññi na waaw kan bokk ñaanal xale bi xam ne victime la xam ne ndog la ay bokkam aussi ñu di leen daral seen xel xam ne yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko lu ko neex lay def waaye New York City gii dream bi fi nekkoon ba ndëgg yi mu ngi fi waaw ku góor góor lu jàng te ngeen xool xale yi xale yi dañoo dëgër bopp xale yi lu ngeen leen wax duñ ko def waaye bis bu ne ñu gis loo xam ne dañ leen tax a daw dañ leen tax a daw mais gis ngeen ni mu demee rek ni mu dem dafa mel ne xale yi tey yi ndox min naan dafa wuute ndox mun suñ bàyyi joxoon xale yi duñ dégg dañoo të te lu ne nag ñaare lu ne lu ne mun leen a bañ a dal ndax toppandoo gi ni toppandoo ñii ci mbedd mi waddal tugoy ah peñe wacc sa bopp mu sëq ngay lugur luguri sol daal yoo xam ne si yow sa bàyyi amul lum lekk nga sol daal di huit cent dollars neuf cent dollars black américain yi bu la jeg ko fetal la waaw doo ñëw ci dëkku jàmbur nag ngeen leen faa tedd blague yi dañuy lànk si lii lépp ay blague yu dee la fii ci bronze la gis nga garab goo romb rey ñu fa nit dama ne mi ngi nii angle boo dugg rek ña ngi fa samp ay butéeli ki pot teg ko at mu ne at mu ne geng bi di dik célébré fii dañ fay rey nit at mu ne rek maanaam boo romb mbedd mi bis bu ne da nga gis mat fukk waaw te fukk yooyu at mu ne at benn lay benn yoon lañ koy def par at waaw ko bukk góor góorgóorlu te yem ci ay loxo te ngeen téye seen doom yi xale yi door a ñëw Nicaragua ay liggéeykat a ci ne ay jàmbaar a ci ne ñoom American Dream ñoo ci nekk xale yoo xam ne bu seeni kayit génnee daa ñoom teraanga ju leen bett waaw ñi li ñi xaw a jaaxal sax du ñu fi juddoo de mais ñi nga xam ne li la jëlee sax nga leen fi ah ñooñu di ci ëpp ñoo nu jaaxal mais xale yi fi juddoo sax ñu ngi góorgóorlu jéem a baax ndax lu gàtt gàtt fi lu ñu juddoo xaw na noonu nuroog noir américain yi waaw ah, mën a jaxasoo ak ñoom tuuti waaye nu nii door a dikk sa kàddu bu jibee ñu accent bi accent bi liy déggal xam ne yow doo américain ñu tàmbali laan tapas naa la feeg yu feeg boo yu feeg man yu motherfucker yu bullshit man dama xam naa dëkk bi waaw mille neuf cent quatre fii la ma fekk dëkk bi am naa presque quarante ans quarante et un foo am université boo quarante ans doon professeur wala nga doon docteur fii am naa plus de quarante ans kon xam naa lii ma leen di wax xale bi gaañoo tax mënumaa wax waaye dinaa ci explication ba mu gën a leer ci yéen ak ngeen di sàmme xale yi fii ku bëgg a tekki-tekki de école baa ngi fii associé degré képp boo ko amee boo ko amee tàmbalee daal quatre-vingt mille dollars waxuma la ak bachelor degré waxuma la degré armée bi ay opportunité moo ci nekk ay opportunité moo ci nekk mais xale yi li ma la wax rek waaw ndox mii ñu naan xaw fu ndox mi jógee waaye day lu day kéemaan métti na si njawootam métti ñi fi ñi fi nekkaloon metti na ci ñoom waaye nag boo xamee boo xamee da nga gis lu bari suñ doom yi ñu indi fii ñu indi fii wóor na yàlla ne xale yi jóge Nicaragua ñu leen ëpp jom ëpp leen fulla ëpp leen fayda dàq leen di gën la xam liñ bëgg am nattu nag boo xasee ba am rek am na waaw te boo ni ci dëj li nga boox lépp doo ko mën a wax te senegal gépp ni ci ab dëj senegal gépp ni ci dëj ndax ñu ngi def suñ doom ji metti na métti na te góor góor lii ma lu ma xam la dama dama fee yàgg lool doon membre fondateur membre fondateur de l'association des Sénégalais d'Amérique en 1987 86 87 waaw lañ ko tàmbali waaw di ko dox ba heure bi association baa ngi existé ma doon lu ne nag biir damay dem police réunion police yëpp laay dem réunion police yu bëri dama ciy dem communauté policing bi dama ci dem xam nu mu demee entité ak Ablaye Thiam ay yoon yoon Ablaye Thiam dafa ñu ay Sénégal dafa dem di gëstu rek nuñ mën a xamee bu dimbali communauté bi Amérique dëkk bu baax a ngi nii dëkk bu am sécurité mi ngi nii dëkk la boo xam ne ku góorgóorlu dem fii yaay xool fi nga bëgg dugg nga dugg fa ñu baax ñaa ngi nii jànkat ñaa ngi nii ñu ñaa ngi nii nit yi diine yaa ngi nii dama di fooy bëgg a dem de yaa fa yóbbu sa bopp oh, xanaa ñu tëj rek dem rek yaa fa yóbbu sa bopp ko ju àlla ñu du yaatu yàlla aar ko dugal ko ci àjjana yi gën njabootam gii mu fi bàyyi ndeyam ak baayam ak ki bokkam yàlla aar leen ñoom itam waa xaritam yéeg ñëpp yàlla nañ bool yàlla boole aar ban mucc coow yi nga xam ne mooy am ci réew mi coow yàlla ci yàlla musal te xale yi xale yi dëgër nañ bopp dëgër nañ waaye téye leen xale yi jar na bu sa doom të nga dem police signalé ko jar na ko ñu dencal la ko quelque temps waaw bu génne da nekk nit waaye bàyyi ko ci mbedd muy taxawaalu tuy rek ngay dégg ñu ne rey nañ ko may jégg lu baax nag man la Seydina Ousmane Dramé kisan law